bul bul d'accord bul bëgg a nga am raison tout de yow yenn saa yàlla dafa am ñoo xam ne bu leen mayee euh, ñuy def yenn analyse du tout de la ñuy leen di dégg da ngay prêcher dans le désert au début mais bu ñu demee ba ci digg bi ñu gis ko donc pour man man aw ma dara lu may nëpp wala lu may njuuj njaaj wala patati patata man li ma wax dafa leer nañ en octobre 2023 conditions yi mu demee woon pour ñu def élection yi ma gis ko dama ne baaxul fii gars yi donc yow da ngay toog fii nga jàkkaarlook sénégalais yi nga ne leen lu débat bi prolongé wu prolongé wu man Boubacar Camara kenn du ma tudd parce que mbiru report bi kenn du ma tudd ci kenn manœuvre yu jëm ci report parce que mbiru report bi dina débat bi débat bi mu ngi dem waxuma mbiri lu bari dina feeñ xam nga ko waxuma tudd xam nga tudd moom dama ne la amul fenn Sénégal tey man sax du ma toog foofu di wax loolu parce que damay loolu su ma demee ba wax bu ma tolloo foofu di wax ne defuma euh, defuma jut ay manœuvre franchement dafay dafay mel ni man maay Boubacar Camara quand même. day ridicule. mais dafa am fu ma jaar quand am fu ma jaar man dafa lu ma représenté ci dëkk bi am na loo xam ne nii jomb naa ko wax euh, ay doomu soxna ay kilifa ci réew mi di dégg may wax loo xam ne nii ëllëg day am.